bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlaana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin kon ngir xamle wala fàttalente ci tomb bu am solo bii ci waxtu wi ñu toll ci weeru tedd wi nga xam ne mooy weeru gàmm muy weer woo xam ne ci lanu sunu borom baaxee ki nga xam ne moom la sunu borom yónni mu doon yërmande ci kaw suuf doon yërmande ci jaam ñépp muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy weer wu màgg woo xam ne sëriñ tuubaa xamal nañu ne lépp luñ doon sàkku ci sunu boroom rekk ci weer wi lañ ko amee muy rawatina nag guddi gi nga xam ne mooy guddi gi mu feeñ jamono muy guddi gu yéeme goo xam ne bari na kéemaan yu ca feeñ yoo xam ne mooy tegtale ne ngën gi mi def feeñ na ndax gis nañ ca loo xam ne lu xar lu xar baax la maanaam loo xam ne baaxoo wuñ ko woon a gis ca ñoom ca fa mu feeñ te gis nañ ne ca guddi googa gis nañ ne feeñ na ca loolu ku dem ci xasida ak jëzbul xuluub danga ko ca fekk lu mel ne mën naa cee tudd lu mel ne paleb kisra ba iwaanu kisran sadaa fiha wa qablu rufia samkun lahoo fartafaa nahwa samal mukarrami nga xam ne pale ba dafa yëngu-yëngutu goo xam ne moom ci boppam yëg na ne kat am na xew-xew bu am boo xam ne bokkut ak ya daan am naka noonu it ñi nga xam ne ñu daan jëli xibaar di indi mel na ne guddi googu am nañ jafe-jafe ngir leeruk sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo doon dàkku ñoom xërëm yi nga xam ne moom lañ daan jëfandikoo bay mën a am ay information ci lu mel na jinne yeeg yu mel noonu guddi googu nag day guddi gu màgg goo xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ak dundam gis nañ fonk gum ko fonkoon gis nañ it bàyyi gum ko doon bàyyiloo xel jullit ñi moo xam ak cant la wala wala mu mel ne kuy feeñal ak jaamu yàlla ci woor bis boobu lu mel ne bésub altine bi nga xam ne ci la ganee woon jamono ak yu baree bari daal yoo xam ne xam nañ ne mënees na caa sukkandiku ngir xamle ne bés bu màgg la loolu it nag moo tax noonu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fonke woon yar ci ñi nga xam ne mooy saxaaba yi mu àndaloon ñi nga xam ne it dañoo ñëw ginnaawam foofa rekk lañ nekkoon ba ci ñi nga xam ne ñooy boroom awraad yi ba ci ki nga xam ne mooy xutbu jamonoom di ki nga xam ne moo donn rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan di ki nga xam ne moo fi ñëw ngir yeesal sunna yonent bi di ki nga xam ne moo feeñ fii ngir yeesal lislaami sayyiduna muhammad di xaadimu rasul moom it ba mu ñëwee foofa rekk la jaar ndax moom léppam day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ Tuuba léppam day yonent bi man nga ne jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo feeñaat jamono rek di defaat la ko sunu borom yónni woon ndax yàlla kat day faral dadaa faral di yónni ay yonent ñuy gindi xeet yi ba mu yàgg mu mel ne dafa soppi méthode ba mu doon jëfee di yónni ay nit yàlla ñuy ñëw di def mission ba nga xam ne moom la yonente yooya daan def sëriñ bii nag di kenn ca ñooña nekk asna xadiima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom nag li ma ko waxee léegi ne day jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ju ñëwaat loolu sëñ bee ko waxal boppam sëriñ ma bànji njaay nettali na ko nee na ay naari gànnaar ñëw nañ ci sëriñ bi di ko laaj ne ko gis nañ ne de yàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën nañ ne benn ngeen da ngeen a nuroo ci lépp ne ko lenn rek moo tee ñu mën a wax ne yow yaay jëmmi yonent bi sëriñ bi ne leen loolu lu mu doon ñu ne ko yonent bi amul woon takk ndeer te yow topp nañ ci sa ginnaaw gis nga am takk ndeer ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weñ daawu ko laal te gis nañ ne yow yooyu yëpp dana am ci yow sëriñ bi daal di laaj naar bi ne ko ndax xam ngeen muhammadu rasulullah ñaata yoon la ñëw jamono naar bi ne ko xamuñu ko sëñ bi ne ko laajal ñi nga àndal mu ne ko xamuñ ko sëñ bi ne ko laaj leen rek mu ne ko xamuñ ko ndax dañoo jàpp ne maa leen gën a xam bañ jiital ma ñu ñëw ngir laaj la loolu sëriñ bi ne ko kon nag dinaa leen ko leeral ne ko muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ñetti yoon yoon wu njëkk wi ak leer la wala boog yoon wu njëkk wi ruux la yoonu ñaareel bi ak leer la ne ko te leer nag du am takk ndeer xam naa mooy booba mu nekkee diggante Makka ak Madina ne ko yoonu ñetteel wi nag shaxsu la nee na bi naar bi ne nikk nikkal sëñ bi daal di fëgg dënam ne ko haa ana maanaam xamal ko ne man maay moom kon loolu mooy ba tey rek la muy wax ne nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli shay'in wa ma abaahu ya abaahu ak wa ma yabaahu abaahu nga xam ne ñoom ñaar lenn lañ mu bëggoon ko cofeel goo xam ne day dëggal sëriñ bi day dëggal xadis ba yonent bi waxoon ne texe ñeel na ña nga xam ne danañu ñëw gëm ma lool te duñ ma mas a gis te buñ xoolee ci zaahir ci zaahir donte nag seenu giseeg giseeg fi leneen moom jiitu na waaye giseeg zaahir moom xam nañ ci ne fekkante wuñ jamono ci ci niñ ko xamee waaye bëggeelam ak cofeelam ak nangoo gu ma doon xaadima rasul tax na amoon na ci yonent bi jagle goo xam ne mësuñoo gis ku ko yàlla may ci àdduna fonkoon na ko lool lool moo taxit nag bisub gane àddunaam bii bokk na ci yi daan ëpp ay jeexit ci dunduk sëriñ tuuba sëriñ tuuba daana wax ne sama ñaari dëkk yi ci sama ñaari weer yi lu ma fi waay ñaan boo ko amul ci yow la ñaari dëkk yi mooy Tuuba ak Njaareem ñaari weer yi mooy weeru gàmm ak weeru koor weeru gàmm wii su ma saana jot ndax sëriñ bi moom weeru gàmm la daan màggal weeru gàmm wépp bu ma saana jot bis bu ne daf koy màggal daani ila ixyaai za shahri kawnuhu moo tax bu weer yu ma saana jot dañ daan seetlu ci moom ak belli dañ daan seetlu ci moom neex deret lool dañ daan seetlu ci moom daaw tëju lépp lu waaye di wut bu weeru gàmmu jege sax dangay bàyyi ba gàmmu ji ba gàmmu gi jege ngir nga mën koo gaaw a am ci moom yombal lépp ci weeru gàmm wi daanañ ci gis ak soppiku goo xam ne daal daana wuteeg weer ya weesu woon man nga ne sax sëñ bi moom diirub jamonoom sax da daan màggal ganek àdduna ak yonante bi ku dem daarul mooti di nga ci xam dara altine ju jot am nañ barab boo xam ne noonu lañ ko tuddee mawlit nga xam ne loola lañ fay def kon da cee amoon ak cofeel goo xam ne su weer wi feeñee dañ koy dañuy gis ne day feeñ ci kan kanam gi képp koo xam ne yaa ko yëgal ne weer wi feeñ na su boobaa yow moom sa bis dana neex ndax dana la neexal neexal boo xam ne ndax sëñ bi ak tabe dafa bokk ci màndargaam yi gën a fees sëñ Basiiru leeral na ko nga xam ne buy joxe da ngay xam ne kii moom ragalul ak ñàkk moo tax ku ko masaana xibaar ne ko weer wi feeñ na dañ ko daan jëkkante ku ko masaana xibaar ku ne dana la jox ay xéewal yoo xam ne mosoo koo am mukk ci àdduna aajo joo amit mu faj ko du delloo kenn du gàntu kenn du du def kenn lu ko naqari naka jekk sax waaye weeru koor day rawati bu ñëwee muy weeru tabas weeru weeru weeru gàmm da cee rawati su weeru gàmm ñëwee mu di ko teertu ci ay xasidaam raxabtu tanziman bi shahril muntaqa alayhi taslima muni lirtiqa basharta yaa rabia kulla zittuqa yaa zarfa nuuri wastifaain wantiqa yaa man xabaana billadi lam yuxlaxa nadiruhu wa abadan lan yuxlaxa nga xam ne foofu day teeru weeru gàmm naan ko yow weeru gàmm wi nga xam ne yaay weeru almuntaqa ka ñu tànn mooy yonent bi salaahu salaam yow mi nga xam ne yaay weeru màgg wi maa ngi lay maa ngi lay tatagal di la teeru yow yaay ki nga xam ne yaa ñu bégal ci indil ñu ci indil ñu ku tedd kii nga xam ne mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne moo jiitu way ragal yàlla yépp di yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yàlla mës sa bind ku mel ne moom te dootu ko bind mukk laka aqulu marhaban lil muntaqa yaa man haba bihi yaa man haba bihi wa alayta irtiqa kon noonu la daan teeroo weeru gàmm bu ñëwee noonu it la daan sante yàlla ci xéewal yi nga xam ne moom lañu indil ci weeru gàmm wi te xéewal yi ma nga tàmbalee ci ngën gi mindéef mi nga xam ne moo gane àdduna ci weer wi mu ne ko alayka ahmadu lazi qad atlaqa kulli li wajihi wa lastu mumliqa kon noonu la daan def ci weer wi noonu la ko daan teer teeroo noonu la ko daan dundalee weer wi nee naa la léegi weeru weeru weeru gàmm wépp la daan màggal daani ila ihya isa shahri kawnuhu li xayril wara zarfan hawa kulla sudadi kon moom weeru gàmm wi yépp rek bu ma saana jot bis bu ne bisub gàmm la koy la koy jàppee nga xam ne weeru gàmm dafa jàppoon ne moom mooy weer wi nga xam ne mooy moo mooy indi solution ci bépp jafe-jafe wala boog mooy saafara bépp ràgg loolu da nga koy gis ci ay xasidaam yow mu naan mu naan ko yow weeru gàmm yow ngën gi weer wi nga xam ne yaa ñu indil ngën gi mindéef yow yaay ki nga xam ne dañal nga dindi nga ak tayal dindi nga bépp feebar yow yaay weer wi nga xam ne dangaa ñëw indil ñu ngën gi mindéef yow yaay ki nga xam ne yaa ñu fegal bépp yokkat yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali yaa xayra shikr yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali mubashiran maxawta anni kasali kon weeru koor noonu la meloon ci sëriñ bu mag bi weeru weeru gàmm kon weeru gàmm noonu la meloon noonu la meloon ci sëriñ bu mag bi man nga ne daal mooy weer wi ko gënal ci fukki weer ak ñaar yi ci lañ daan seetlu it ba ci xaside yi muy bind sax da ngay da nga ciy yëg neexeetu xaraf yeeg bayit yeeg arab yi ak da nga ciy yëgit ne kii wax day mel ne li muy wax daa maanaam day am yëg-yëg yëg-yëgu bànneex lool ci ki muy wax ak ci li muy wax nga xam ne dafa mel ne rek. xeetu mbégte la moo xam ne da daan fees dal xolam ba bu koy exprimer maanaam buy génn sax danga ko ciy sentir saadati adharaha rabiu al awalu allazi huwa rabiu wa jahli mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjilu taamal asali wax na ko sax nee na weeru gàmmu daf ma indil neexit woo xam ne moo dàq lem ilayya qutta muxjilan lil asali min xayri rabbin xayri baaxin mursali kon noonu la weer wi meloon ci moom naka noonu it moom sëriñ bi weeru gàmm ni ma ko waxee léegi mën nga ne moo doonoon weer wi mu jàpp ne moo gën a kawe mboolem weer yi faaxa rabiul awali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura shahru rasulillahi bahjati bahjatu shuhur wa ramadaanu shahru itqin wa tuxuur mooy la ma waxoon léegi ci ñaari weer yooyu nee na weeru gàmm mooy weer wi nga xam ne moo kawe weer yépp ndax lan mooy weer wi nga xam ne moo ñu indil ngën gi mindeef di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom weeru gàmmu moom weeru gàmm mën nga ne mooy sàngub weer yi ci des yépp donte it weeru ramadaan it loolu la ci wax nee na mooy weer wi nga xam ne it moo ñu mooy weer wi ñu goreel ndax loolu yonent bi moo moo ko saxal xam le ne weeru koor am na gore ci sawara am na ci set ci bàkkaar loolu la sëñ bi gën a feddaliwaat rek waaye nag weeru gàmm moom mooy weer wi nga xam ne mooy sàngub weer yi loolu moo tax daf ko daan màggal di ko di ko di ko di di di di ko di ko di ko maanaam di ko daf ko daan màggal ci guddi gàmm ak weeru gàmm wépp mu doon it loo xam ne manees na ne mooy mu bokk wala mu do mu do mu doon it li nga xam ne manees na ne bu ko njëkkute def ci réew mi bokk na ci njëkko njëkk a def ci réew mi moom Serigne Touba ndax. xëy na ku mel ne soxna astawaalo nee nañ teel na koo def lool moom mooy maami sëriñ bu mag bi waaye ñi sëriñ Tuubaa daal ñi mu jamonoonteel ci zaahir moom manees na ni mooy ki ci njëkk a màggal weeru gàmm mooy ki ci njëkk a màggal guddi gàmm di ko màggal maanaam def ko muy feet ndax ni mu waxee rek loolu loolu la ngay dellu ci ay mbindam moo ko waxal boppam ahyaytu mawlidan nabi min assashin wan xaadali fawxal muna fi hamsashin malaktu mawlidan nabi min assashin kitaabati waxaadani min jamsashin ahyaytu mawlidan nabi mooy dundal naa guddik ganeek àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundal naa ko màggal naa ko gàmm naa ko min assashin ci atum 1301 1301 nag soo ko doon xayma ci ati tubaab mooy 1882 du ko sori nga xam ne kon mën nga ne rek juste après ginnaaw làquk sëñ Mor Anta Sali rek ci la sëñ Tuubaa tàmbalee organiser di màggal guddi gàmm ahyaytu mawlidan nabi min assashin wan xaadali fawxal mona fii xam sashin am na it wan xaadali fawxal mona fii tal sashin kon teel na koo def lool bokk na it kon ñi ko njëkk a def ci réew mi noonu it la ci daan soññee nit ñi da daan soññu taalibe yi di soññu jullit ñi ci di màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax tamit yool bi nekk ci màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir xeemeem loo leen ko ngir tamit xam ne mooy li nga xam ne moo ñuy may ak mucc boo demee ci jazbul xulóob wax na ko ca nee na màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu war la ci képp koo xam ne kilifa ga mawliduhu muazzamun mubaarakun muxtaramu tanzimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi kon moom saxa saxal màggal gi soññee ci mu mel ne dañ koo laaj ana suñ ko dee màggal duñ koy defee mu nañu màggal gi nag nañ koy màggalee ci sunna maanaam yemut ci li dagan rek waaye na doon na dëppook sunna boole ci kon guddi gàmmu képp ku koy màggal danga ko war a def dëppale ko ak sunna tanzimuhu bi sunnati yaquudunaa lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazami bam noppee ci loolu tamit mu wax njariñ yi ci nekk soññee na ci màggal ko waaye fàttali na njariñ yi tamit ngir xemeemloo ko nit ñi mu ne képp koo xam ne màggal nga guddi gàmm guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ganewoon àdduna màggal nga ko na la wóor ne yaa ngi mel ne koo xam ne danga shahid maanaam dangaa faatu ca xare darajey shahid boo boo xoolee dañ naan la sax saxaaba yi nga xam ne dañoo xeex ca badar fas yañ waroon puuritu gémmiñ nga maanaam puurit may jóge ci gémmiñ fas ya moo raw fuuf darajey wàlli yu awliyaaw yi waxumaag nag koo xam ne nag dangaa faatu ca xare ba shahid kon sëriñ bi nee na koo xam ne dangay màggal guddi gàmm fonk ko waaye di ko màggal ci sunna yaa ngi mel ne koo xam ne dangaa xeex xeex badar ba ñu rey la daraja jooju ngay am loolu la naan fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda falaa yuxaasabu xada faxtariman wa azimi te it te it kii fonk di màggal guddi gàmm kenn du ko xisaab fa man yuazim mawlida xayril baraaya ahmada faka shahidin mi ngi mel ne koo xam ne dafa faatu ci bisub badar faka shahidin shahida badran bi xayri wahami ba tey mu ne koo xam ne dangaa jël sa alal def ko ci guddi gàmm doonte ab dërëm la sax yaa ngi mel ne ku fekkee xareb xunayni yaa ngi mel ne ku fekkee xareb badar ba noppi xeex ca xare ba bokk ci ñi nga xam ne ñoo dundal ñoo ñoo ñoo jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu am victoire ba fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi xadri dirhami fa innahu kaman xadara yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral wara mufahimi kon daal ci tënk rek guddi gàmmoom li ci sëñ bi wax dafa ne sax maanaam maanaam njariñ yi ci nekk ak sirru bi ci nekk ak xéewal yi ci nekk nit mënula koo wax maanaam kenn mënula koo leeral bam ba mu jeex kenn mënula koo xibaarit ba mu jeex na nga xam ne daal sunu borom làq na ci serro bu mag a mag a mag boo xam ne ku dul yàlla xamu ko ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mawlidil muxtaari sirrun yuktamu is sawnuhu anil wara yan xatimu kon am na sirro bu ci nekk boo xam ne sunu borom daf koo ñoŋal waaye nag teewut lii nga xam ne daal moom la ci wax lenn la ci rek boo demee ci jës bu gën naa yaatu wax na ci yu baree baree bari yoo xam ne ay xéewal la ak i njariñ yoo xam ne sunu boroom dëhal na ko ki nga xam ne daa fonk di màggal guddi ganek àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax Cheikhul Xadim da ci daan soññu jullit ñi daan ci soññu taalibe yi ñu góorgóorlu ci jàng alxuraan ci guddi gàmm góorgóorlu ci tudd yàlla ci guddi gàmm di góorgóorlu tamit ci baril salaatu ala nabi bu ñu xoolee Cheikh Mouhamadul Mortada moom Serigne Touba am na ay dog ay lim yoo xam ne daan na ko ci joxe ngir ñu fonk ko ci guddi gàmmuk màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu it sëriñ bi daana ci diggee daana ci digle ñu fonk njàngum xasida yi rawatina xasida yi nga xam ne daa jëm ci salaatu ala nabi wala xasida yi nga xam ne daa jëm daa jëm ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam xasida gu mel ne muqaddamatul amdaax fi mazaayal miftaax xasida gu mel ne jazbul xuluub li àllaamil xuyuub xasida gu mel ne mawaahibu naafi fi madaih shaafi xasida gu mel ne mawlidul ban barzan jii maanaam téere bu mel ne barzan jii it sëñ bi daan na ko jàngalu ci mag ci gàmmu gi daan na ko it laabire bu baax daan na ci jàll jàllale ay ay ay ay message maanaam ay soññee ak i fàttali di leen digal di leen tere ak di leen fàttali li nga xam ne moo ñu fi indi te bàyyi ñu fi mooy jaamu yàlla kon manees naa tudd rek lenn ci yooyu nga xam ne gis nañ ni daal sëriñ bi daan na ci soññe nga xam ne manees na ne bu njëkk lañ gënoon a xam sax ci murit gi gàmmu ji njaareem moom mag ñi mel na ne ci liñ gënoon a fonk la bokk nañ ko daan defee it nii ma wax la daan nekk ci diggante ñiy mawlud di mawlud ñi yor kurus yor ko ñi yor seeni jukki yor ko sëriñ bi nekk ci seen biir di leen bégal nga xam ne daanañ jàng xasida ba sëñ bi ci boppam sax moom ci boppam da daan mel ne ku tàqaliko ak sagoom ci xasida yi nga xam ne moom lañ daan jàng fonkoon na ko lool daal daan na ci soññee lool it mag ñi mu defar it kenn ku ci nekk gox ba nga nekk daan nga ci def sa kem kàttan ngir màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu it lañuy gisee ne day mel ne da daan bëgg weer wi du dem weeru weeru weeru weeru weeru gàmm wi da ngay gis ne sëñ bi day day day mel ne weeru gàmm wi day day day gàtt ci moom daal bu sañoon day wéy ndeysaan da ngay xool am na xaside yoo xam ne day day xaw a daw yaram sax ngir day mel ne da ciy tàggatoog weer wi am na xaside goo xam ne ay mooy xaside yi nga xam ne da ay aba aba rabiu lay wax naan weeru gàmm de dafa mel ne fi mu toll nii bëggut lu dul dem daan ne ko yow weeru gàmm yaa ngi dem de xëy na dem rek nga gis fi mu toll nii waaye nag ñoo ngi lay sant ci mbégte ak xéewal gi nga xam ne indil nga ñu ko mooy xasida gim naan aba rabiu siwal idbaari bin naami min baadi iqbaalihi bil ardi wan naami aba rabiu siwa tawdii murtaxilan weer wi de moom nee na day tàggatoo rek dem rek la gis bi ma lahu min busharaatin wa min karamin ak li nga xam ne moom la làq ci ay mbégte ak i xéewal aba rabiu rabiul mustafa wazari siwa rawaahi wa xayra sayri lam yarumi waaye li ci yéeme mooy dane ko sëñ bi mu ne weer wi de moom dogu na ci ne day dem rek waaye nag yow weeru gàmm maa ngi lay wax ne la ginnaaw ba góolu du dem de man ngaa dem de waaye na nga xam ne yaa ngi dem de waaye yaa ngi yóbbaale sama xol te maa ngi lay yóbbante boo demee na nga wax ka nga xam ne mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na nga ko wax ne ko na nga ma ko nuyul na nga ma nuyul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo demee nee ko am na fii ab ab xadiimam am na fii ak ku koy liggéeyal koo xam ne ci li ci ku koy liggéeyal koo xam ne ci li ko gërëm rek lay yëngu. nee ko nag maa am na fii ab xaddiim ab liggéeykatam boo xam ne ma ngay julli ci moom saa su ne ci xalimaam ak daawam mooy lim naan ko faxul faxultu xiina aba gayra almasiri lahu sirra sir yaa rabiu wa ma fi minka min sa'ami sir raashidan bi fuaadi yaa rabiu ila man kunta zarfan lahu waqra lahu kalimi na nga ko jottali samay kàddu wala na nga ko jottali samay nuyoo sir raashidan li rasulillahi sayidina waqra ilayhi salaami min yadi wa fami wa fami waxul lahu na nga ko wax ne ko yaa rabia al xayri inna lahu huna xadiman am na fii ku koy liggéeyal bi maa yurdihi za xidamin koo xam ne ca la mu la mu gërëm moom yonent bi rek ca la nekk di ko ci liggéeyal saa su ne lahu xadimun boo demee neel yonent bi am na fii ab serviteur boo xam ne yusalli bisalaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil xalami mi ngi julli ci moom julli ci waa këram julli ci ay saxaabaam saa su ne ci xalimaam ak daam ndax sëriñ bi julli ci yonent bi wala tagg yonent bi moo nekkoon xitma bi nga xam ne moom la ko daan defal te it dafa doonoon loo xam ne maanaam dafa da dafa da da koo jaayante woon dafa bokk ci yi nga xam ne moom la jaayante woon mooy lim jaayante woon ak suñu borom ngir jaamoo ko yàlla mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci ay xalimaam yu bari baayaatuhu bi fuaadi wala boog baayaat baayaatuhu bi xalami yooyu yëpp wax na ko kon noonu la sëñ bi nekkee woon ak weer wi noonu la sëñ bi daan dundalee weer wi nga xam ne weer wi jiitu wala boog weer wi topp ci weeru weeru weeru weeru weeru weer wi topp ci weeru gàmm sax noonu la ko noonu la meloon ci moom daan ko yaa xayra shahrin murdiin bi taahiri li taahiril qalbi jamili zaahiri yu mel noonu am na daf ko daan tagg di ko xamal ne yaay weer wi nga xam ne ci la ñu nàmpal ngën gi mindeef fonk foo nga xam ne loolu rek moom taxoon na mu fonk mu fonk weer woowu kon daal diggam ak yonent bi cofeel gi fi amoon day cofeel goo xam ne sëñ bi moom dafa jàppoon ne loolu farata la wasalli da ban ala man xubbuhu furida moom bëgg yonent bi farata la woon ci moom te it lim daan liggéeyal yonent bi it nee woon na bëgg ko rek a taxoon mu di ko def daani li ixdaami nabi xubbu zaatihi daani li madxil daani li ixdaami nabi xubbu zaatihi nga xam ne liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi koy def dara taxoon mu di ko def lu dul bëgg ko da koo bëgg kon mel na ne cofeel ak mbëggeel goo xam ne moo fees xolam rek moo ko yóbbee lépp lu ko dal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye moo ko may lépp lu mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daal ma nees naa tënk foofu rek ci ne nii daal la sëñ bi gisee woon gàmm wala boog lii lenn la ci li sëriñ bi gisee woon gàmm ak ni mu ko daan màggalee ak ni nga xam ne it noonu la ko daan digalee taalibe yi ñu farlu ci nuy ñaan yàlla mu defal ñu ci tawféex ba ñu defee ko ni nga xam ne noonu la ko diglee te làq ci ngërëmul sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah